الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والشكر معا لله على النبي ولد عبد الله شكر بابو مدون جن سانغبي متاهون ماغي سانت الله لولو دو باخ باخ موي ايفيت ساي ناولا تشيمبيت واي bàyyi ba naxar ñëw nga ne kaay leen leen ma yàlla du baax waaye nag moo janook noon bi ne ko axrajtumuuni naatiqiina bi annani abdul ilaahi wa innani la mujaahidun mu loola wax mësuma ñëw ci li ma ci toftolo gannaaw bu ma joxe joxee nuyoowu xalifa alxaaji ibrahim bu lew ne ña seen lew ne ña seen mooy bayti Cheikh Ahmad Bamba ñaari leetara ma nga fa ak kitaabul jalaalayni bu mu joxoon sama bàyyi ba mu ko jaale see Serigne euh, Mam Mor Jaara ma nga fa kon li ma waxoon Serigne Bachir Abdou Khadir ba fa ñëwee ne ko lew na seen mooy bayti moom Medina Baye nag benn lañ waaye tarbiya bi ñuy wax Cheikh Ahmad Bamba dafa jaar yoon woo xam ne ñu bëri jaaruñ mooy nee na wa zawjatun saluhat bu doon man xasunat laay wax waaw mu ne saluxat loolu la de ku dem ca baar ba takk saf ndaw indi ko bu la juralee disquette wala disco waroo wax dara kon amoo saluxat kon xasunat nga am ñaareel ba wa tawbatan qubilat ñu bëri duñ koy def yoonu murit laa ci gis ñu koy def te innama tawbatu ala allah lilladina yaamaluuna suua bi jahalatin suma yatubuuna min qarib fa ulaika yatubu allahu alayhim wa kana allahu aliman waaye walaysat tawbatu lilladina yaamaluuna sayiat oustaz Alioune Sall yàlla bu ne sayiat rek day ñàngal bu ne suo rek mooy bàyyil mu dem garaawut tarbiya boobu kuy ko si biir benn policier la woon ma doon liggéey ak président Abdou Diouf ñu jël ko yóbbu ko fu wéet ekkati un million teg ko ne ko defal rapport ci diw te maa lay bu jaaree fa mu war a jaar ñu wàcc mu ne man duma ko def ndax man murid sadiq la allahu akbar kooku mooy yarub cheikhul xadim benn bi mooy Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ñuy ay ndaw mu fekk ñu Maroc saa yu génnee rek benn waay ci gaay mi rek daal yuuxu daal di koy bàkk sëñ Saliou Mbacké ambassadeur ne ko eh noppi waay yow civilisé mu ne ko man murit laa ab murit du civilisé loolu loolu nag tey la war a xew ab murit bu demee Amérique na takk xar moom ñëpp xam ne murit la bu mu complexe am murit bu demee ba ci àgg mu ne ah ñii daal doomi suñ Tuubaa jeex nañu waaye ñii daal maa ngi ñoom a yem déedéet baat bu yaatoo yaatoo yaatoo la ñetteel ba mooy Cheikhul Xadim karaamam pire mooy jaarale nañ ko foo xam ne ida zakartu dalika al mabita te loolu yëpp moo ko benn waay ne ma ana ana tatanoos ko yàlla bañ jële waayam yóbbu ko ci safara sa safara say lakke yàlla rocci sirrub lakke bàyyi muy tàkk yàlla moomu moo jël Cheikhul Khadim muy waayam ñu jam ko pont ya amul tatanoos kon nañ jéem a nekk waaye yàlla tënk lool gërëm lool Serigne Isxaaqa Mbakke bi nga xamee ne li ma séq ak moom bëri na lool di gërëm bu baax baax magam ju baax ja dama ñëw ci fulk fa lay tëjee ne ko ñaanal ma sëñ Muntaqa mu ne waftax lanaa kulla baabin kunta faatihaw ma ne amin ñëw ba ci bunt bi dox deux mètres téléphone bi na allo ma ne ko kan la ñàngal mu ne Béthio Thioune sëñ Béthio moo ñu yónni ñu ngi la indil aw nag ma ñëwaat ci sëñ Isaaka ne ko sëñ sëñ Muntaxa sa ñaan gi gaaw na lool xam nga moom léppam xaal la mu ne ma ni nga dëggoo ci sëñ bi nëbboo ci dara lakkoo ci dara moo tax sëñ bi di la gaa gaaw uyu kon tuuba li abdin muridin sadiqin lahumu bi xidmatin aw bi xobbin aw hadiyaati du ma présenté sama bopp photo bii dama koo jënd gars yi nag ñu ngi ci ut sama dépense waaye nag buñ waruñ ma waruñ